sénégalais yi ngay wax nii Ousmane Sonko en a fait euh, ses ses ses ses ennemis moom mooy tuddee noonu parce que tout tout son discours jëm ci journalistes yi mhm. la presse sur son dos. Mhm. tax mooy que ne bi bis bu fekkee ne ne da dem en guerre ak ñoom tôt tard yow yaa ciy perte. parce que presse tu seras tu seras le grand père. le grand perdant c'est un bloc mondial. parce que du Sénégal rek koy waxee maanaam bi ñu jàpp ay journaliste la presse étrangère en a parlé dénoncé ko c'est loolu sax au de ça mu rawa sénégalais mooy koo xam ne ne day xëy ci rajo bi booy dégg li ma dégg internet booy dégg lu tele bi wax sénégalais moo jàpp ne ne lu tele wax dëgg la lu réseaux sociaux wax dëgg la on ne peut pas faire leen. on peut pas on peut pas faire sans la man bu ma ko doon conseil dama ko naan woo all tous les patrons de presse. Mm-hmm. nga waxtaan ak ñoom. boo waxtaanee ak ñoom. Mhm. li nga xam ne ne jàpp nga ne moo tax presque bi doxut ngeen waxtaane ko. Mhm. li nga xam ne ne jàpp nga ne boo leen si jàppalee ñu dox mu dox mais bëgg dem ak ñoom en conflit usure et je sais je connais Ousmane quand même il est beaucoup plus intelligent que ça. Mhm. bu toogaatee dina xam ne ne peut-être yoon boobu baaxul ci moom mais yooyu yëpp. ba léegi mais on dirait dafa am benn frustration bu ne ci moom ba tey. jëm ci presse bi jëm ci certains opposants euh, jëm ci certains magistrats parce que moom ñoom sax ils en ont eu pour leur grade donc je veux dire euh, yooyu yooyu il faut que mu dem dindi ko bu bëggee nekk un vrai homme homme d'état. c'est c'est à rectifier yooyu man ànduma ci tey ànduma ci suba je suis vraiment pas d'accord pour man c'est à rectifier. lu tax mhm. mu communiquer lu tax mu dem ma ko mais man. Mhm. c'est